cancer yi nekk ci ween bi wala bu nekk ci butitu njurukaay bi teel ko gis rek moo la ci mën a donc moo tax ñu ne amicale agence de presse sénégalaise ñu ne ci octobre rose bi nga xam ne ñëpp dañuy def dépistage ñun tamit ñu xalaat def ci dépistage pour woo femmes yi femmes yi fii liggéeyee mais femmes yi nekk ci koñ bi aussi parce que ñu ngi ciblé téeméeri jigéen pour defal leen cancer di dépistage cancer du col wala cancer du sein maanaam cancer bi nekk ci butu njurukaay bi nga xam ne kenn du ko gis moo tax euh, dépistage bi am solo ñu ngi woo jigéen ñëpp muy octobre muy beneen weer fu ñu toll ñuy xool seen yaram di dépisté wu parce que cancer bi mu ngi def jéye yoo xam ne nii teel koo gis ak teel koo xam rek moo ñu ci mën a muccal